Eh, di sant mboolem ñi nga xam ne dañuy bàyyi kàddu gi xel fun mëntika nekk mm-hmm. di jaajëfal ñépp rek ci bàyyi xel geek teewlu geek saxoo gi mm-hmm. ndax yitte ku lay bàyyi xel dañ ko war di bàyyi xel kon ñu ngi ziar ñëpp di leen ñaanal jàmm mm-hmm. tey nag ñu fas yéene dikk ci tomb bu am solo waaye tomb bu bari njariñ waaye tomb boo xam ne jàpp naa ne eh, jullit bu ne war na ci bàyyi xel tom boobu nag ñu koy wax eh, saraxe saraxe eh, nekk lu am solo ci jullit bi waaye nekk lu mata bàyyi xel ndax alquran dikk na ci mooy nas sunna dikk na ci mooy ahadis kon nas bi koy wéral am na solo waaye sun na tamit am na solo ndax sun boroom daf ñu wax ci alquran lu mata bàyyi xel na ngeen xam ne jullit bi di am lum bëgg mukk lu dut lam gën a bëgg lay joxe kon bu ne saraxe tamit nit ki buy joxe joxe lum bëgg bokk tag nag ñu koy nit ñi di defee ci Sénégal mooy loo xam ne doyootoo ko dara soxlaatoo ko nga ne dangay saraxe loolu moom dangaa bëgg a tàqalikook li nga yor rek waaye saraxe taxulaa jóg saraxe nag buñ ko waxee nga def ko te yàlla rek tax bokk na ci lu lay dimbali waaye dafa doon loo xam ne jullit ñi dañ cee war a gën a bàyyi xel ndax yenent bi moo wax daa u mardaakum bis sadaqat na ngeen xam ni seeni tawat yeen koy fajee ci ay saraxe bu nit ki amee tawat wala mu am aajo mu xool lu am solo mu génne ko jox ko moroomum doomu aadamaam boo xam dana koy aajowoo aajowo googu nag ci la koy suñu waroon di faj li nga xamante ni moo ko dal ndax loolu tamit lu mat a bàyyi xel la saraxe nag am na yu ci gën mat a bàyyi xel ma rasul bara wax lil fuqara'i ba ila axiri aaya saraxe nag day jëmal nit ki digganteem ak boromam waaye day tax suñ borom jéggal ko ay bàkkaaram ba tax tamit day fay ñaawteef yi nit ki def comme ni safara di fayee ndox loolu rek eh, jaroon na saraxe saraxe day tax tamit nit ki ak fanam gën a gudd ba tey tamit day jëñ li nga xam ne mooy balaa balaa bu waroon wàcc ci sarax boobu nit ki def yàlla mën na cee jaare ba dootu wàccati koo xam nag danga bëgg saraxe sirran wa alaaniya mu ngi fi sirran ci lu feeñ wa alaaniya ak ci lu nëbbu fu man baax na hmm, fekkente ni nag dangay def yàlla rek tax bëgg nit ñi rey la mën nga koo def mu fees su fekkee dangay bañ gis tal tamit mën nga ko def mu nëbbu alaakulli xaal eh, li ci ëpp solo nit ki boo koy jox dangay jëng koy jox lim bëgg nit ñi nag ñi ci bari nit ñuy def de nuru saraxe waaye du saraxe te dafa ol balaa moom ñu koy def bariwut di saraxe ngir jëñ ak balaa mooy nit ñëw diis la soxlaam te lam la diis fekk na yor nga ko wala mën nga ko nga defal ko ko te yàlla rek tax loolu lu mat bàyyi xel la euh, bu dee koo xam ne nag danga bëgg suñ borom di la musal ci lu bari del yëkkati ñam bu am solo boo xam ne danga koy bëgg yow mi koy joxe jox ko ko aajowoo yàlla mën naa faj sa aajo ndax kii teral doomi aadama yi te yàlla rek tax yàlla day faj sa aajo kon saraxe day jëñ balaa ba tey tamit day guddal ay fan ba tey tamit day fay ay ñaawteef kom ni safara di fayee ñaawteef ba tey tamit day dollik wërsëg ba tey tamit saraxee day tax suñ boroom musal la ci mbugalam ndax yàlla ko ne xam na ni am na mbugal te mbugalam boobu jaami képp ko tax a jóg koo xam nag yaa ngi saraxe te yàlla rek tax amul den loo ciy séentu yàlla bu ëllëgee mën na laa mosal ci mbugalam moom mi nga xam ne ci mosalaate ba tey tamit jëmmi saraxe day yokk wërsëg koo xam ne dangay jël sa alal di ko def ci yoonu yàlla te yàlla rek tax day yokk bu baax a baax ma rox wax ma anfaqtu min shay'in koo xam ne jël nga sa alal def ko ci yoonu yàlla te yàlla rek tax yàlla nee na bu ëllëgee dama la koy fulal mo lay wax ni ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu inda Allah lepp lu ngeen def te man yalla rek ma tax bo ëllëgé di ngeen ko fa fekk min xayri tajidu inda Allah kon di ngeen fekk fa yalla li ngeen doon jëf ku mëna a lek bu defar ba baax nga di saraxé saraxe ku mëna jël xaaliss bu takku di set ko ko aajowoo ko jox ko ko wéré di amul lu mu fajoo nga faj ko te yàlla rek tax loolu saraxe la koo xam nag amoo loo saraxe amoo loo faje nit del bari wax del bari di def laa ilaha illallah wallahu akbar boo koy def day mel ni yaa ngi saraxe soo ko mënut kër gi nga dëkk loo fa mën a raxas wala di ko defar nga di ko def jublu ci saraxe ba tey da nga am tiyaa ko saraxe kuy dox ci mbedd ba ci yàgg fekk fa loo xam ne mën naa lor doomi aadama nga dindi ko loolu saraxe la ba tey nit dox ci mbedd ba ci yàgg tufli ko te nit bu ko dëggee mën na koo lor nga ñëw suul ko wala nga landale ko ba du lor kenn loolu moom it day taxaw taxawaayu saraxe kon jàpp naa ne doomu aadama yi ne mënuma saraxe mënut a nekk ndax yii yépp jàpp naa ne kenn ku ne war ngu ko mën nit ki nag soo koy jox danga koy jox lim bëgg waaye bu ko jox li nga bëgg da gis ko am day yor xaalis wala sarax nit ki dem jëndal ko ko ceeb wala diwlin amaana sox soxlawul ceeb ak diwlin yëkkital xaalis bi jox ko yàlla rek tax ku man di saraxee mburu baax na mu baree bari ceeb ku ko man di saraxee baax na ba tey tamit ku man di saraxe dugub baax na ku man di saraxe mboq baax na ku man di saraxe ñebbe baax na ku man di saraxe gerte baax na toog ba ci yàgg nga jékki-jékki ut lu am solo jël ko saraxe soo ko day def incha allah rabbi sa ajo dana faju te suñ borom dana guddal saw fan ba tey tamit dana la musal ci mbugalam ndax jaam yëpp jaam yàlla la ki gënal yàlla mooy ki nga xam ne mu ngi jàppale jaamam yi te yàlla di gën a bàyyi fii muy gudd fan nag ki nga xam ne amal na njariñ jaam yi kon eh, jullit ñi nañuy gën a bàyyi xel ci li nga xamante ni mooy saraxe eh, ba tey tamit yenn saa nit ki toog ba ci yàgg mu jind am xar mu baax saraxe ko te yàlla rek tax wala am bëy wala mu jël yàpp bare bare saraxe ko yooyu yëpp soo koy def di faj aajoy nit ñi di ko def te yàlla rek tax ci am tiyaaba te nga gudd fan te suñ borom dana la musal kon yii rek jàpp naa ne war na tax nit ki muy gën a bàyyi xel saraxe di ko def fu mu ko mënee yàlla mën naa dem ba gàllankoor ak tolof-tolof yi mu waroon a jànkuwanteel mën na cee mucc kon saraxe lu am solo la ci jullit bi lépp loo xam ne lu baax la eh, mu koy génne di ko saraxe di ko jox ñu ko aajowoo boo nekkee ci jafe-jafe mu ut lu am solo saraxe ko yàlla mën na koo génne ci xat-xat yooyu ak tolof-tolof yi te mën na cee mucc ci jàmm te du am benn gàllankoor kon saraxe lu mat di bari la waaye lu mat di bàyyi xel la lu mat di def la incha allah rabbi képp koy def rek suñ boroom na la musal ci gàllankoor ak tolof-tolof yi nga xam ne mooy gaar doomu aadama incha allahu rabbi kon saraxe mu ngi noonu nañ ci bàyyi xel